Abdou Thiam sa mbay ci digital bi dal leen jàmm ci rajo bi ngeen taamu RFM préfet bu ndakaaru tere na ndaje bi nga xam ne mouvement Y'en moo ko bëggoon amal tey jile bu ñett waxtu jotee ca place de la nation kilifa bi nag daal dafa dal wax ne euh, bëggul loolee daal di am ba ñu daal di salfañe dem bekk dikk bi waaye tamit yàq li nga xam ne ñeneen ñoom ñoo ko dal di moom Serigne Mansour Sy Jamil ne ñu ngi koy dànkaafu mu ngi nag joytu ci ministre bu intérieur ne ñu ngi koy dànkaafu ba sax daal di faat bakkan fan yi weesu ne moom lay dund waral nag mu bëgg kii daan di Antoine Félix jom gën a bàyyi xel ci lépp lu jëm ci kaaraange ci gàmmu Tiwaawoon waaye tamit euh, yeneen ci wàllu euh, assainissement ak ndox mi lépp daal di ñoŋ dem na ñoo amal waxtaan ngir waajal gàmmu Tiwaawan leexali ñu déglu moom mi di euh, umax Mbaw ma fa nekkoon ndox ak assainissement doon ñaari mbir yi nga xamante ni ub na bopp comité d'organisation bu gàmmu bu Tivaouane ak gouvernement bi waaye nag bi ñu sukkandikoo ci Antoine Félix Abdoulaye jomm lépp dina yàmb. foog na bu ñu wéyalee liggéey bi rek fii laata boobu lépp dina yàmb ndaxte comité d'organisation bi macha allah am ngeen expérience lool ak it démembrement état bi lu demee ni ONAS DGPI ak it brigade nationale bu sapeur pompier dinañ daal di def seen kiim kattan ba lépp luy gàllankoor ci lu demee ni ci wàllum assainissement ak ndox mu yàmb incha allah loolu sax nekkul jafe-jafe. bi nga xamante ni war na mën a bopp yéen waa Tiwaawoon beneen mbir bu ñëw wax yokk ci mbir mi nag mooy li ñuy woowee sàmm kaaraange askan wi li ko waral nag mooy Serigne Mansour Sy Djamil moo doon xamle ne dañ koy menacer léegi bos bu jot. suñu sécurité doon nekk jamono ju jafe-jafe. sëñ li sécurité laaj yi yëpp. waxuma daaw daaw géej waaye ren ren ren. ma je suis menacé de mort defuma dara. est-ce que sécurité boobu daa ngeen ko assuré. tax nag Antoine Félix Diome di xamle ne na xelam dal ndaxte tànk gouvernement baa ngi fi jàmm rek te xoxotal nit du mujj fenn. nit bu lay menacé wala muy menacé Serigne Moustapha li ma mën a wax mooy et mën leen ko wax mooy que ni réew mi comme ni ba mu demee di ko ziar ma koy. réitéré ici réew diggante comité d'organisation bu gàmmu ci na ak jëwriñ bu ñu dénk biir réew mi nag amal nañ ko daanaka ci juróomi waxtu mu doon ab ndaje bi nga xamante ni dafa mujje ci déggoo diggante ñaari parti yi. beneen këru diine bi wajal li di gàmmu di foofee ca Kaolack mi dina bàyyi. Euh, foofee nag lu ñu gën a bàyyi xel daal mooy ñu gën a bàyyi euh, xel ci lëpp lu jëm ci wër gu yaram askan wa fay ñëw di ay taalibe ngir fekkee bi la gàmmu ñu nag yëkkati ay koppar yu doy teg ko ci taabal ngir lépp lu jëm te jumtukaay ci wàllu woowee ñu daal di ko ñongal comme ni ko Marie Khemesse Ngom Ndiaye ministre bu euh, santé bëggee santaane Fatou Mbow ci ay leeral ngir amal gàmmu 2023 bu mucc ayib naka noonu tamit fàggu ci yenn ci ay feebar yu si mel ni grippe fièvre hémorragique Crimée-Congo ak yeneen docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye di jëwriñ bu ñu gàllu wàllum paj mi nag di xamle ne daal nañu teg ay dispositif sanitaire yu mucc ayib. siburu bi mu ngi fi ba léegi. Covid bi tam mu ngi fi. loolu moo tax li ñu njëkk a njëkk a wax ci présentation yi mooy fagaru promotion la santé. fii ak semaine di nga gis li fi nar a ñëw. ci nit ñoo xamante ne takku nañu macha allah ñeen war a jàppale ba nga xamante ne bu ñu ñëwee nañ fekk jàmm ci wàllu faj. xew-xewu diine boobu na di dalal gan yu bare tax ba ñu war a teg ay éléments yu nécessaires ngir ñu mën a garantir ay couverture yu yemb. fu ci nekk tey jii teg nañ fa couverture sanitaire boo xam ne am na solo euh, en terme de personnel. réquisition ambulance yi mooy lépp loo xamante ne daal bëgg nañ ku ñëw. ñëw ak jàmm fekk fi jàmm ñibbi ak jàmm. lu ñeel nat waajtaayu gàmm gi nat hôpital régional bi daal dinañ koy jox ay matériel yu toll ci trois cent quatre-vingt-dix millions ci sunuy koppar naka noonu tamit gën a dooleel yeneen poste de santé ngir gën a mën a ñoŋal. offre de soins bi. tey kenn dootul laam-laamee ne hôpital El Hadj Ibrahima Niass nekkul référence bu mag la parce que gis nga li fa dugal tey dinañ ci yoxaale poste de santé am centre santé bu ñu jox mais loolu yëpp boo ko nattee egg na ci plus de trois cent quatre-vingt-dix millions. indi nañ euh, ne di nekk ci bloc opératoire ñëw na fi. mu ci loolu dañ bëgg léegi zéro poubelle yi nga xam ne dañ koy jàpp ak loxo. jëwriñ bu ñu dénk wàllum paj bi ak action sociale ak ñeneen i acteurs daal nañu amal doxum nemmeeku ca Medina Baye ngir xoolaat dispositif sanitaire bi ci boobu la ndajee nag muy xamle ne dinañ tabax ab l'hôpital niveau 3 ci bu yàggul fii ci diwaanu Saloum Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. ñu wutale réew Maroc ñaari doomu sénégalais ñu ngi ci euh, situation bu doy waar juróom-ñett ci ñoom ci ñu may gaañu gaañu gannaaw ba fa suuf si yëngoo foofe ca réew Maroc. muy ab euh, étudiante euh, waaye tamit beneen doomu sénégalais bu yeewu foofu ca Marrakech bilan bi ba tey di woy di gën tiital askan ba fa ne leexali Xaadim Mbay ñaari sénégalais ñoo nekk ci ay jafe-jafe yu metti gannaaw bu séisme bi amee fii nga xam ni moom moo di Maroc kenn ki ab étudiante la nekk ci Casablanca keneen ki nekk fa fële nga xam ni moo di Marrakech moom sax nee nañu gaañu gaañu yi dafa metti lool ba àgg sax ci moom dafa daal di fàtte lépp loo xam ni euh, da ko daal di xaman ci àdduna àndatul ak xelam daanaka soxna si nag moom nee nañ te itam kaam métti na ndax ñi ngi ko hospitalisé fii ci Casablanca te soo moytuwul dina am ay opération yu takkoo takku yoo xam ni dinañ ko ko defal ñoom ñaar nag dañoo fa li nga xam ni moo di quatrième étage bi tremblement de terre di am fii ci Maroc ci lim bi ñu amagun ci Sénégalais yoo xam ni am nañ ci gaañu gaañu toll nañ ci juróom-ñett waaye nag ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ci li nga xam ni moo di tremblement de terre bi ñi ngi wax ni jege na lool lii di 3000 doomu aadama Maroc nag fi mu ne nii secours yi ñi ngi def seen i kéemtalaay kattan di daal di jëlee doomu adama yi nga xam ni dañoo nekk ci ay jafe-jafe ci village yi nga xam ni fa la mbir mi gën a méttee yooyu jamono sens ngir gis nit ñuy dundali ba tey wàññeeku loolu Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias ak RFM kumpa jeex na intersyndical bu boole liggéeykatu mairie yi daal ñoom euh, fa ñu taxaw ñu taxaw ne du ñu bàyyi ñu sax fa seen tàmbali ab grève boo xam ne juróom fan lay am ñu war ko tàmbali altine ba ñu dëgmal li ñu nag nakkarlu daal mooy gouvernement da leen a fullaalul ci seen xeex wile ndax daal ñu ngi wéy daal di laaj ñu yokk seeni i rek ak yeneen leexale ak Ndiaga Diop euh, yor seen i kàddu ci euh, téléphone beeg Serigne Saliou Seck Ndiaga Diop Abdou Thiam bu dee élément bi yemb na moom mii di porte parole intersyndical bu boole liggéeykatu mairie dal ne seen grève boobee dañ koy wéyal ñu déglu ko. waaye ñu ngi mettitlu bu baax cellaral gi nga xam ne moom la gouvernement bi def jàpp nañ ne gouvernement bu Sénégal amuñu benn considération ci liggéeykat yi nga xam ne ñooy liggéeykatu collectivité territoriale ñu ngi ci leneen tal leneen ñu ngi ñu ngi toppatoo seen agenda politique ñëpp gis nañu li xew fan yi si si Sénégal faalewu ñu kenn ñoom seen yëfu bopp rek la toppatoo fi mu toll ni semaine bële passé suñu ministre de tutelle ñuy Mamadou yu yu yoo xam ne ni ñun jàppoon nañu bu ñu jógee foofu rek situation bi dana rek la mu ne ñu waxuñu dara loolu nag moo pousse euh, liggéeykat yi à travers l'intersyndicale ñu ne xeex bi kat dañu koy continuer moo tax semaine ñu décrété waat cent vingt heures à partir du lundi dix huit euh, mardi dix neuf mercredi vingt jeudi vingt et un ba vingt deux septembre incha allah dinañu observer grève ci Sénégal yépp bu soob yàlla ñun nag wax dëgg yàlla loolu ñun du suñu du suñu suñu suñu responsabilité ñuy jël xam nga di métitlu di métitlu waa ah, li nga xam ne moom la ñuy métit bi nga xam ne moom la ñuy teg suñu suñu suñu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo soxla ay acte d'état civil ak ñi nga xam ne dañuy soxla yeneen kayit ci maire loolu yëpp nag ci veille ouverture euh, des classes bi nga xam ne ci lañ jëm ñu jël nag état bi mu nekk responsable loolu yëpp situation bi kat état bi mooy responsable te ñun saafara suñu tawat pour que ñu mën a delloo si lépp jaar si yoon. coow ci wàllu suuf ca cité des enseignants ca Tivaouane Peulh askan ba fa yeewoon ak di joxari baaraamu tuuma ab promoteur privé daal ne da leen di song di leen sax agressé eh, di ko jaaxe ci ñeneen yor seen i ngànnaay moom mi ñu joxari baaraamu tuuma nag ak ñi mu àndal daal ne loolee amul ñu ne mësuñoo attaqué ñoom ñoo ñe di wax waaye tamit ñu ngi leen tam joxari baaraamu tuuma ñoom seen bopp dal ne ñoom ñoo jël seen suuf toll ci juróomi hectare leexal yi ak yoxoon seen i kàddu di Serigne Modou Dieng dafa am lu xew ci commune Tivaouane Peulh ñàgg te fokk nu leeral ko parce que leeral dafa jot la fa xew mooy El Hadj Dia société bu naan COSEAS moom la ñoo ñu dem dugg ko cinq hectares yu manque tuuti bi ñu ko duggee cinq hectares yu manque tuuti ku naan Ousmane Gueye Ba moom mooy directeur COSEAS ñoom ci seen jëmi bopp au lieu que Ousso porté leen plainte ñoom ñoo ko porté plainte ñoom ñoom COSEAS ñu dem ci yoon Ousso gagné leen bi leen Ousso gagné ñu amaan Ousmane Gueye Ba ak COSEAS un milliard sept cent et quelques ba pare delloo ko bi ñu defee loolu victime yi nga xam ne nag Ousmane Gueye ba dafa sàcc alalu jaamur jaay leen ko muy enseignant yi ñi nga xam ne dañoo dugg ci suufu usoo ñooñu au lieu que ñu toppi Ousmane Gueye ba muy COSEAS defuñu ko dañ ne usoo la ñuy xeexal ak njabootam bërki démb la fa xew ak juma kon naan Mamadou Dia mooy taawu usoo moom moo yor site bi far gardien yi woo ko téléphone ni ko am na ñuy tabax Mamadou woo waa des Descos waa des Descos ñëw accompagner ko ànd ak moom pour arrêter terrain boo xam ni Koulibaly moo ko doon tabax fekk na ñoom réunion nañu seen réunion pour ku dugg ci site ba ñu dal sa kaw bi waa Descos excès bay arrêté terrain bi ci la ko enseignants yi di filmer ci leen ko songu dóor ko ba gaañ ko di lancé appel directeur Descos Sabouri Ndiaye ñun xamuñu kenn ku fa dugg parce que ñun bi mbir mi amee ñu gaañ suñu doom te noo téye ñëpp mu ngoog leneen euh, ba tey ci wàllu suuf di kuréel bu boole ñi loru ci autoroute Dakar Tivaouane Saint-Louis ñoom tamit euh, ñu ngay yéglu gannaaw ñaari at yu ñu toog di xaar ngi ñu jox leen seeni i ndàmpaay ñu ngi tollu ci junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ñi ci loru daal di naqarlu yéexte yi nga xam ne am na ci yëf yi ndax seen activité lépp taxaw Ousmane Ndiaye di coordonnateur comité boobee boole ñi loru ci autoroute boobee nag ne euh, suuf si nag ñàkk a moomoon dinañ ko jëlaat di xaar nag kilifa luñ ci wax euh, laata dal ñu it ñu ñu ci indi saafara ñu doon la ko ak Ousseynou Diop. mais gis nañ ni ñàkk fayda gën ñu ñàkkal fayda ci payoor gi ñaari atu yàllaa ngi nii ay baykat bayatul seen tool te loolu lañ doon yor pour dundee dundali seen njaboot dañoo amoon ay toolu gàncax abandonné ka mënatuñu jëlati fu nu wutati seen ay moyens de subsistance bu yore seen njaboot ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leboon ci bank yi pour génne seen njaboot ci ci location ñooñu boobu ba tey ñu ngi continuer di fay banque yi mais continuer di fay location dañuy delluwaat képp ka nga xam ni mi ngi doon tabax daanu delluwaat tabaxaat ndax mën a jox sunu njaboot kër gu mu dëkk ñi nga xam dañu yore seen tool daanu delluwaat bay seen tool pour mën a dundal seen njaboot de la même façon ñi nga xam ni ay toolu gàncax la amoon ay verger daanu delluwaat def seen ay verger bu état demee nag ba nga xam ni bëgg na suuf si suuf si soxal na ko loolu bu boobaa mu ñëw ñu toogaat. ñi nga xam ne daal dañu safoo TikTok ne ci lool mais sa mbay euh, rawatina nag ñi nga xam ne euh, ñoom daal foofu la ñu nekk ngir di euh, dugg di xool yenn yi waaye ba tey seeni coono jeexagul ndax daal. Euh, dafa daal mel ni am na ñoo xam ne ngi ñu dugg TikTok daal fo foo ñoom fu ñu jaar laata ñu fa mën a dugg ndax kilifa yi ñoom ñoo ko defee woon noonu xam ngeen ne fanu manifester yi moom moo ko waraloon ngir ñi ci yëngu nag daal dàpp ne boobulee dogal euh, ñu ci ëpp daal gis nañu ne bonnul euh, ndax daal am na loo xam ne faw tamit ñu gën ci indi ay saafara laata yenn di am leexal yi ak jomaxoon jamono ji nga xamante ne ñi jëfandikoo euh, TikTok ñoo ngi amoon yaakaar ne restriction yi ñu ci def dinañ ko bàyyi ministre bi nga xamante ne moo yor communication ak xarale yi moom nag wax na ak waa observateur ne restriction boobu dafay wéy donte sax am na ay jafe-jafe ci ñi nga xamante ñooy faral di jaay ci internet Moustapha Diakhaté moom mooy secrétaire exécutif kuréel gi ñu wax Restic daxul décision yi kilifa yi jël waaye xamle na ne ngir doxal ko du yomb. mun naa fibre optique bi ci ñun lay jaar signal satellite yi ci ñun lay ñëw mais am ñun dañu mun dañu amul contenu suñu dëkk yi ñun daanam dañu produire dara ci contenu ni ñuy imposer ay séries télévisées noonu la ñuy imposer ay contenu ci biir réseaux sociaux yi loolu moo am TikTok loolu moo am Instagram loolu moo am Facebook loolu moo am quasiment WhatsApp dañuy imposer ay contenu tant que ñun Afrique nag jéemuñu defar ay contenu yoo xam ni ñoom ñoo gën a refléter suñu ay tradition loolu dina nekk problème pour ñu arrêter leen Sénégal moomul boppam ci mbirum numérique doole lool donte ci Sénégal am na benn ndaw boo xam ne dafa taxawal benn réseau social bi ñuy wax ëpp na Ahmadou Pouy rafetlu na nam restriction bu nga xamante ñu ko def ci TikTok waaye njiitum startup bi de Upcore xamle na ne moom sa bopp ci mbirum numérique réew bu nekk de ko war a def. Euh, jafe-jafe yi ci yeneen réseaux sociaux yi yëpp am. sàllaaw ëpp na am na ko. waaye dafa am lenn lu ci ne mooy réseau social sénégalais boo xamante ni ay sénégalais ñoo ko administré li ci nekk mooy gaawtu bi ñuy am ñun Sénégal ci daay buy waaj tàkk ñu gaaw fay ko yeneen réseaux sociaux yi mun nañ ko bañ a bañ amee ni Sénégal ak état bu Sénégal li muy daj ci fay ay daay yu nekk Facebook wala fay ay daay yu nekk Twitter du ko ci daj ci loo xamante ne ay sénégalais ñoo ko administré. décision boobu nga xamante ne kilifa yi dañ ko jël kañ lay jeex tontu bi nag nekkagul léegi. mu ngoog jomoroon juróom ñett waxtu na fukk simili ak juróom benn ci rajo bi ngeen taamu RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu ngi ci wàccaayu présidentielle 2024 parti socialiste moom ne moom taxaw na ngir daal di dimbali jàppale kii di Amadou Ba. parti ba nag ne moom fas yéenewul présenté ab candidat bureau politique ba nag ñu ngi war a sax waxtaan samedi bi ñu dégmal ngir daal fexe ba dëggal boobu la dogal Abdoulaye Binal di porte parole ba ci micro beeg Abdourahmane Diallo. secrétariat exécutif bu parti socialiste. mu ngi soññi. mboolem soppe yi militant yi. ci biir parti bi ak ci biir benn bokk yaakaar. ñépp soobu ci. fexe ba tànn bii ñu tànn ñu am ci ndam lu ñu mosul am ci élection. pour loolu parti solis secrétaire exécutif dina fexe lépp loo xam ne nii war na ko mu sàmmoonteeg moom wàccoonteeg moom digganteem ak bureau politique bi nga xam ne woo na ko ndaje samedi ngir jukkil leen li soqe ko ci li bureau politique santoon secrétaire exécutif ak njiitu parti bi suñu kilifa Aminata Mbengue Ndiaye yaakaar nañu ne bu ñu génnee ci bureau politique boobu li nga xam ne nii jàpp nañ ne mooy li rafet di li war mooy ñun ñëpp ñi nekk benn xam ne nit su joxee kàddoom daf koy sàmm bañ sosee Benno Bokk Yaakaar ba nëgg ni li ñu suñu njiit fa Ousmane Tanor Dieng daan wax te loolu la Aminata Mbengue Ndiaye jubéen mooy ni dara luy xajamal wala luy yàq wala luy tasaare Benno Bokk Yaakaar bu mu jógee ko ci parti na nag fu mu nar a amee di Jean Baptiste Diouf ndax daal moom fekkewul sax dem réunion bu secrétaire exécutif bu parti socialiste maire bu Grand Yoff euh, bokk nag ci ba tey ci partie bi daal dafa daal wax na yàggul moom kan daal lay doon te kenn du ko ko tere waaye sax euh, moom lu jëm ci ay mbiram ni ki démb jot nañu ko sax waxtaanee foofee gannaaw ànd bu yàgg ak kii daal di Nguy Ndiaye euh, nekkoon ministre bu ak ndax dafa sax démissionné ca postam ministre bu agriculture Yoro Sow député ak maire bu. Euh, war xoox moom nag dafa dal di euh, takk euh, li ko kii daal Nguy Ndiaye daal ngir dem jàppale kii di Amadou Ba di candidat bu benn bokk yaakaar ngir 2024 Yoro Sow nag sax jox na yëkkati ay kàddu ngir daal naqarlu ni nga xam ne moom la ñu doxalee ci réunion bu boole maire ya coalition benn bokk yaakaar ba amoon fa ca daara Jolof jiite woon ko kii di Samba Ndiobène Ka ñu déglu ko ak Bayasan Diaw. donte ne jege ñaale Aly Ngouille la Yoro député maire bu Warxoox nee na fi ko Macky Sall xolloo lay xool. kilifa googu nga tudd mooy suñu mag la ministre Aly Ngouille Ndiaye. di ko nangul aussi ndogalam parce que kilifa la responsable. yàlla boole woon ñu ci coalition Benno Bokk Yaakaar. ñu doon liggéey nag franchement. collaboration boo xamante ne bii. wax dëgg yàlla xam naa ne. moom xeebuma ci man xeebuma ko ci. waaye nag ku nekk ak sa yoon ñun. soo gisee ñu def politique. président Macky nit ñi ma génn benn bokk yaakaar dem feneen. mu ñëwaat sax si ndaje mi maire yu benn bokk yaakaar woote woon ci Daara Jolof ci teewaayu ministre Samba Ndiobène bi gàlloo développement communautaire ngir andi ay leeral. ndaje boobu ñun ñoo ko waxtaanee woon ñun ñëpp képp kuy maire dans le département de Linguère en fait dafa am nu ndaje bi waroon a demee parce que ñun ay élus lañ ay maire lañ dañoo jëloon engagement devant le président de la république gannaaw yëpp ñu daje tëju def résolution wane ne ñoo ko waxoon lii def na ko ñoo ngi ci gannaaw mooy leader boo xamante bi dafa ñëw jàpp ne moom rek moo nekk responsable dans le département de Linguère déedéet man gisewu ma noonu. Yoro Sow di biral ni du nekk ci ginnaaw benn responsable politique bu dul Macky Sall. pour ma dem fësal ne président Macky Sall laa ak du ma dem nekk ci gannaaw kenn damay fësal ne ci gannaaw président Macky Sall laa nekk. APR laa politique ku fa ñëw da ma cee fekk. APR laa bëgg a des. président Macky Sall laa bëgg des. donc lu mu def dama ciy ànd ak. loolu amul luñ ciy naatam. ay weer rek des ci joŋante falum njiitu réew. kàngam yi nekk ci biir Benno Bokk Yaakaar ci biir département bu Linguère rawatina ci biir APR tàmbale di wane seen ñàkk doon benn Baye Assane Diaw war xoox rajo Futur Media. Cheikh Tidiane Diagne maa ngi la ziar. maa ngi lay fay Seydou Ndour Ba mu ngoog. ayo bisimilah gis naa nag fi duggee léegi waaye baax na ba après. ayca <laughs> euh, Seydou. ñu uh-huh. daal di ko doon box. Uh-huh. voilà xam nga ni euh, Ndakaaru boobu ak léegi. ñu ngay dalal lii di tournoi qualificatif Jeux olympiques Paris 2024 ñu koy amal fii nii ci Dakar Arena ci wàllum boxe la euh, final yi nag tey lañ koy dal di amal euh, Sénégal euh, kaleen teewal nag ci mbir mi moom moo di Jarga Balde moom mi nga xamante ne démb jotoon naa am demi gagné ci demi final bi nga xamante ci la doon yëngu léegi nag bébétam mooy fexe ba am tey jii ndam bu ko daal defee kon bokk mu mën a bokk ci Jeux olympiques yooyu nga xamante ni déwén koy daal di amal foofu la ca Paris ñu déglu ko Jarga Balde vraiment euh, kontaan naa trop euh, combat bi métti na tuuti rek xam nga rek dama bokk si démb combat bu nakari sax kooku noonu champion la dem na jeux olympique xaw ñaata yoon dem na champion du monde xam nga kooku moom du boxeur bu ndaw quoi te ñun nag ñun presque maanaam ay xale lañ ci boxe bi 2018 lañ commencé donc yàlla def na ma daaneel ko démb quoi mais ça va quoi incha allah loolu yëpp euh, qualification bi moo ko gën incha allah pour bégal Sénégal kii xaw ma ko woon naa seetaan combat mosuma hmm. seetaan combat kontaan naa ci compétition bi parce que xam euh, ñun ay xale lañ xale ay xale yu ndaw lañ nekk fii di jàpp bàyyi rek di dóor mu daanu amuñu dara ku dul boxe bi donc damay ñaan sénégalais rek dafa war a jàpp ci boxe bu baax parce que damaa xool ne Sénégal bon ñoom concentré wuñu ci côté boxe bi quoi ñu amuñu dara ku dul box bi donc il faut gars yi jàpp ci bu baax jàppale ñun xale ñun amuñu métier lii rek la am donc damay ñaan sénégalais ñu jàpp ci affaire bi bu baax a baax li ma reyante ba yegg si fii si incha allah dinaa ko reyante waa tamit ba jël final bi incha allahu rabbi bu soobee yàlla pour dem pour qualifier puis c'est xam naa Sénégal no mën na lii trop te incha allah dinaa leen bégal bu soobee yàlla wàllum pays fukki fan danañ daal di amal lii di traversé Dakar Gorée fédération bi nga xam te ne moom moo ŋànk mbir mi euh, dimanche gii dafa fas yéene sax amal benn compétition bu ndaw euh, ngir waajal googule euh, traversée Dakar Gorée dañ si dal di déglu Lamine Ndoye moom kenn la nekk ci biir fédération sénégalaise bu natation ak sauvetage moom di vice président bi ñu déglu ko ci micro Mamadou Omar Ba. waaw ñi ngi waajal benn compétition dimanche bi 17 euh, te comme ni niñ koy faral di defee chaque année euh, bu dee ne traversée Dakar Gorée dañ koy organiser muy doon le vingt quatre septembre ci année bi nii dañuy daal di def une semaine avant maanaam dimanche dix-sept bi nii benn compétition boo xam ne pour waajal pour ñi nga xam ne dañoo bëgg a participer ñu daal di natt seen bopp ci benn compétition bi ñuy def euh, lagon euh, plage yu lagon fee jëm plage yu Anse Bernard donc dimanche bii nii ci 17 septembre à partir de 9 heures dinañ convoqué invité aussi euh, nageurs yi nga xam ne ñi ngi licencié ci club yi nga xam ne dañoo affilié à la fédération nageur individuel bu nekk ci plage yi ñoo xam ne aussi dañuy war a participer ci Dakar Gorée ñu ñëw participer daal di euh, natt seen bopp pour waajal dimanche ba sa topp compétition Dakar Gorée bi nga xam ne fas yéene nañ ci participer dinañ ko euh, jéem a defar selon circuit ak direction technique bi ak condition yi dinañ koy def ci deux kilomètres cinq cents dimanche bi incha allah si la ñoo fas amal lii di euh, final championnat national national 2 ci wàllu football Euh, ca stade Massensène ca Fatick la ñu koy daal di amal euh, diggante Africa Foot ak AS Bambey ni ki démb ca bañ doon amal demi-finale yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Africa Foot dañoo daal di daan ASUC bu Ziguinchor gannaaw tiro but ba mu jeex yi ki nga xamante ni moo leen di tàggate di Mohamed Sané am na ay kàddu yi nga xamante ni jot na ko yëkkati ñu déglu ko ci micro Aminata Goudiaby. waaw satisfaction rek mbégte rek waaw wax dëgg yàlla liggéey bi moom. Euh, fay na. coono nag am na ci ndax ñaari weer a ngi nii yëngatuwuñ ñu ngi doon toog di xaar ñu programmer tournoi bi moo tax bi ñu woowee ñaari fan lañu am pour waajal match bi moo tax xale yi xaw nañu sonn tuuti mais quand même euh, fulla baa ngi fi woon fayda baa ngi fi baa ngi fi woon te loolu tax tey ñu am résultat bi. waaw on a euh, assuré nañu l' mooy li ñu bëggoon mooy yéeg yéegal nañu équipe bi ñu ngi def parcours bu baax sax si phase retour yi ndax euh, fukki match ak benn la ñu joué ñu gagné yëpp bi mooy fukk fukk ñaari match bu ñu gagné amul match nul depuis retour bi on a tout donc loolu day wane ne vraiment équipe bi am na qualité ay ndaw lañu nag c'est une équipe très jeune ay cadets ñoo fi nekk ay am na sax ay minimes yu ñu joué loo donc ça veut dire que équipe bi am na avenir léegi nag li ñuy seet mooy terminer en beauté mooy gagner titre honorifique boo xam ne mooy titre de champion. loolu nag dana daal di dox seen digg ak AS Bambey mi nga xamante ni démb moom itam jot naa éliminé gannaaw tiro but ci ñaareelu demi-finale bi ñi di waa AS Cambérène. nañ ko waxee nag euh, final championnat national 2 danañ ko daal di amal niki dimanche 17 euh, euh, septembre bi ñu daal nekk ca stade Massène Sène ca Fatick. mu ngoog jaajëf Cheikh Tidiane Diagne. xibaar yi ci RFM. xibaar ñeel cadran ci leen di nuyu mbokk yi Sénégal ñàkk na démb personnalité bu am solo ci secteur de la culture bile muy euh, cinéaste ak bindkat bi di Laurence Gavron ñu doon ko woowee euh, séeréer bu xees génn àdduna gannaaw ab feebar daal dina defar lu ëpp fukki film yoo xam ne mu ngi koy jégleel patrimoine immatériel bu euh, Sénégal daanaka lu ëpp ci œuvre am nag mu ngi koy réewu Sénégal Ibrahima Wane mooy andi seede jàppee ci moom moom mi nekk professeur de littérature et civilisation africaine ci université Cheikh Anta Ndakaaru. waaw Laurence Gavron dafa jàppe boppam euh, sénégalaise demoon na sax ba am nationalité sénégalaise euh, ndax ëpp na fanweeri at lu mu lu ci réew mi wala loo xamante ni ak loolu liggéey na ko ci biir réew mi. li ëpp ci ay filmam daanaka Sénégal la ko jagleel def na lu tolloog lu mu néew néew fukki film yoo xamante ne ay documentaire lañu yuy wone aada ak cosaan ak bi nga xamante ni doomu yi mu jàngalaat leen ko fexe aussi ñeneen ci àddina bi ñu xam loolu ci Sénégal def na film ci kenn ci ki gën a ràññeeku ci cinéaste sénégalais yi muy Djibril Diop Mambéty def film ci Samba Diabaré Samb def film bu mag jagleel ko Ndiaga Mbaye xamante ne bokkoon na ci woykat yi gën a ràññeeku yu dàqoon na bind ci ci ci Sénégal def na film ci Yandé Codou def film ci Asiko def tam ay film yoo xamante ni daf ko jagleel ñi bàyyi bàyyee ko ci yeneen réew dëkk Sénégal ñëw ñu donc ñëw dolli ci Sénégal muy libanais yi muy euh, waa Cap Vert nga xamante ne ay dëkkandoo lañu waaye am solo lool ci ci Sénégal woote na ci Dakar muy waa Vietnam donc nga xamante ni dañu ñëw ci ci ci ci ci guerre bi la ñu ay soldats sénégalais dajeek ay vietnamiens ñu ci bëri am ci ay soxna ñu dëkk fit ba am ci ay sët def it ay livres ay téere yoo xamante ni ay téere fent yoo xamante ni Sénégal la ko jagleel booy dakaar toog teg ci hivernage du mujj tudd Fouta Street muy ko xamante ni dafa wone Sénégal won ko Sénégalais yi waaye won ko àddina bi te ku doon yokk réew mi la ci ay weer dong gannaaw bi mu siwal filmam bu mujju bi Rebeuss chambre 11 bu Mamouri Diop mu ngi woy di am ay uh, ndam prix yu mujj yi mu ngi koy amee uh, fële ca jamono yi ñu doon amal ñaar fukk ak ñaareeli édition uh, union radiophonique et télévisuelle internationale mu di nag surprise bu mag ci gis-gisu journaliste bile ñu déglu ko. trop kontaan naa trop te sant si yàlla tamit parce que film bi bi ma ko pare euh, ci at mi bi muy door laa ko pare euh, boobu ba tey euh, am na ay festival yu mu jot a dem te yàlla def na aussi am na ay prix yu mu amagum maa ngi ci sant yàlla wax dëgg yàlla te di jaajëfal aussi ñi nga xam ne bokkoon naa ak ñoom liggéey bi ak ñi nga xam ne aussi ñoom laa filmer parce que ñoom ñoo nangu. pour euh, ma raconter seen histoire pour wax ma li nekk ci ñoom donc vraiment maa ngi leen di jaajafal waxtaan gi ni mu gën a yaatu ni ki ëllëg samedi Mamouri Thioub mooy doon ganuk seen magazine euh, xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Touba Darou Salam Karo Prestige. DSL ak seen marque bii di Dekakila direction de la santé mère enfant ak Kenkeri AAD. ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf alliance pour la république di APR yëngu na l' observateur di ñu waxuk defante giita ngas gu rëy gu nar a am ci responsable yi ci base bi ci sud bu Sénégal yéen kay bi nee nañu ab jàmmaarloo ma ngi fay xeeñ ci diggante Mame Boye Diao Doura Baldé ak Doudou Ka lu ni mel it mën naa am ci Linguère ci diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Ka mortal combat de guide mi ngi ñuy wax ne ku yóbbu séntu ko ca diggante Cheikh Omar Anne mi ànd ak Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo mi àndul ak Amadou Ba Le Quotidien mel ne ku naan nee na lépp ci suuf fas yéene topp ci gannaaw Amadou Ba mi Macky Sall jiital jàppale li koy firndeel Le Quotidien nee mooy premier ministre Amadou Ba dalal na démb njiital conseil économique social ak environnemental gi di Abdoulaye Daouda Diallo léegi ko nañu ay ruube la ndax kii di Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo ba ñu gëjee gisi ak léegi yàgg na donte sax ak déggoo ci seen biir du la ñu mën a dàq laneen du yéene kaay bi xëy dàq baaxuñu ko moo di photo bi ñuy siiwal démb ak tey ñu gis ci Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdoulaye Seydou Sow ñu jàppantey loxo yéene kaay bi nee nañu photo ba du lu bees li bees léegi ko nee nañu mooy beneen audience bu ñuy séntu ci diggante président Macky ak Abdoulaye Daouda Diallo Vox Populi muy laaj ndax Abdoulaye Daouda Diallo dina nangoo topp ci ginnaaw Amadou Ba mi ngi ñuy wax ne yëf yi ay rumeur ak humeur ki manœuvre bari ci li wóor ci mbir mi bés bi la journée nañu mooy Abdoulaye Daouda Diallo ak Amadou Ba waxtaan nañu ñoo nga doon waxtaanee ci hôtel King Palace te waxtaan wa Racine Sy du ko weddi ndax ma nga woon ca jataay ba am na ñu a ñenn ñi nañu ma ngay taxaw point actu xëy taxaw ci Mahammed Boun Abdallah Dionne ba di ñu wax ne Boun Dionne soobu na ci géew bi candidat la fas yéene doon ci élection présidentielle yi waaye ak lu mu ci nar ak la mu cay def ca Touba fa la ko nar a njëkk a xamle moom Mahammed Boun Abdallah Dionne point actu mi ngi ñuy wax it ne duel bi dafay wéy diggam ak Amadou Ba Amadou Ba moomee Sud Quotidien mi ngi ñuy wax ne élection présidentielle yi mooy doon test bu mag nag ci la ñuy xam ndax dafay wéy li fi nekk mu di continuité bi am ndax rupture lay indi enquête dina kay xëy ñu indil ñi mu jàppee ay candidat outsider ci élection présidentielle yi Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Sall Abdoul Mbaye ak Abdourahmane Diouf ñoom juróom yi enquête dina kay tuddee ay candidat réformiste gis na ne li leen di xaar du yomb mbir meneen mu dul yomb lijjanti seeni borom ñoo nga ca yëral xët njëkk sur soi parti bu bi ñu tas di bët war a mën a roccil bar fu ñu mayee Khalifa Sall Karim Wade ñu bokk ci élection yi war faa mën a bàyyee Ousmane Sonko mu doon candidat candidat à l'immigration clandestine mu di ñiy mbëkk gaali loo ciy jël géej gi di dem Barça wala Barsaq libération mi ngi ñu ciy baaxee ay xibaar yu yéeme te doy waar bil yéenekaay bi ci diggante 4 ba 14 septembre nee nañu fukki gaali loo ak juróom-ñaar teer nañu ci Espagne te gaal yooyu yëpp ci Sénégal ak juróom yu am na it fukki mineur ak juróom yu ca nekkoon l'observateur xëy jël kàddu gi jox ko maam Cheikh Mbaye mooy président fédération association africaine yi ca île Canaries ga ca Espagne moom it def na ay révélation yu yéeme ci doomi Afrique yi jël gaal yi di dugg Espagne ak coono ba ñu cay daj maam Cheikh Mbaye nee na leen daje na ak benn femme bu ko wax ne bi muy ñëw góor yi mu loon gaal gi dañ ko doon violé ci yoon wi yépp